oh Idaly ak Liw Faramareen Idaly ak Liw Faramareen Idaly ndeysaan Idaly jooy na Liw Faramareen jooy na Liw ndeysaan ndeysaan oh Liw baal na Idaly eh baal eh, taxawal fi eh baal nga délégué tamit ah baal nga ñëpp. waaw baalal ñëpp non baal na ñëpp baal na ñëpp. non baalal ñëpp baalal ñëpp non baal na ñëpp baal na ñëpp awa. baal na ñëpp déedéet déedéet awa baal na ñëpp non non non awa non baal na ñëpp baal na ñëpp awa baal na ñëpp awa baal ko baal ko baal ko baal na ñëpp baal na ñëpp baal na ñëpp. man moom li ma ciy wax tamit bëriwul. ndax man li ma njëkk a wax mooy ñii liñ def. tey jii moom bu taxawoon fii lenn rek laa koy laaj lim ma def nii bu nekkoon doomam lañ ko def fan lay taxawee ak lan lay def man côté boobu laay waxee ndax man mënoon nañ ma cee rey kii tamit mënoon na maa porter ñu toj ma ndax damaa tudd turam man kii xaw ma ko musuma kaa gis démb laa ko gis man siidi laa xam yàgg naa dégg nag turam man xaw ma ko hmm. démb jour biñ ma bi ma ñuy yóbbee bi ma ñëwaatee ñëw na ba ci man naan ma yow yaay liw ma ne ko waa man maay liw mu ne yow da ngaa xam Matar ndax moom mooy wax ak man dafa wóobu mu naan ma est ma ne ko ñoom nag fekk nañ ma taxaw yóbbu nañ ma def nañ ma ay menaces yóbbu nañ suma téléphone sama xaalis man nag dama am ay mbokk sama pap sànq la ma woo mu ne ma carrément ñoom leen di dañuy ñëw Dakar dëkk bi nag dëkk yoon la mm. ñoom ñaar lañ woon moom ak délégué ak cinq gars yu àndaloon mm-hmm. benn borom borom yére bu rouge bi moo ñëw fekk ma taxaw mu poñe ma te moom mas bi dafa jeex moom moo ñëw ba ci man ne ma liw kaay ma defal la interview mm. te man xàmmeewuma ko woon bu baax mm. te waali bi muy ñëw Louga yéen yéen ñi ma yow ñi ma doon teg caméra yi di ma filmer ba may taxaw ak ñaari garde yi ba ma naan borom jaal boobu xamul dara yaa ngi taxaw te pourquoi nga ma carrément bàyyil sii di mais waxoo ko. Hmm. pour bëgg lu leen neex. Hmm. tey jii taxaw nga nee nga waali laa saaga man ba tey dégguma tudd turam. Hmm. jii sa nee nga tamit moom ngay défendre. bi problème bi amee est ce que toog na fii di ñaan dem. ñun dañoo war a yeewu suñu biir. li ma def nii nii bu nekkoon sa doom lañ ko def.